Euh, naturellement, la défense est très surprise. Elle respecte la décision, c'est est clair. Mais aussi, nous avons encore euh, une voie de recours qui est le rabat d'arrêt. La défense euh, va réfléchir et voir si en fait il y a un moyen euh, qui nous permet de le faire. Bon, ce que la population et la communauté internationale et nationale doivent comprendre, Euh, c'est que les droits de Barthélemy dans cette procédure n'ont pas été respectés. D'abord, le premier moyen, c'était nous plaindre de ce qu'une exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée en cours d'instance à la Cour d'appel. Et la loi organique sur la Cour suprême, ainsi que la loi constitutionnelle sur le Conseil constitutionnel, font obligation aux juges lorsqu'il se heurte à cette barrière, de ne pas continuer l'audience et de transmettre euh, l'exception au Conseil constitutionnel qui apprécie. Parce que le moyen qui était fondé sur la violation de 169 du Code de procédure pénale, euh, c'était un moyen de défense qui garantissait les droits de la défense parce qu'il violait le principe du contradictoire et violait aussi le principe de l'équilibre des armes entre la défense et l'accusation. Et pour que cela soit plus clair et simplement dit, euh, lorsque le juge d'instruction doit clôturer son enquête, euh, les avocats ont trois jours pour faire des observations et essayer d'amener le juge à conclure à une requalification des faits ou bien à un non-lieu. Après les trois jours, le dossier est transmis au procureur de la République. qui lui a 10 jours pour prendre ses réquisitions et les faire, euh, les faire revenir. Il se trouve que l'article qui est incriminé ne permet pas aux avocats de prendre connaissance des réquisitions du ministère public pour en fait euh, respecter le principe du contradictoire. Alors que le procureur de la République prend connaissance des arguments de la défense, tient compte de cela dans la rédaction de son réquisitoire et les avocats n'ont pas le moyen, la loi n'organise pas la possibilité pour les avocats, n'est-ce pas, de quereller ce qu'il a dit. Euh, donc le principe du contradictoire, et il y a aussi l'équilibre des armes, n'est-ce pas, où il y a une nette faveur qui est donnée au procureur de la République, alors que en matière euh, judiciaire, le débat doit être loyal. l'autre euh, chose, nous, il était reproché au juge de n'avoir pas répondu, parce que là, il y a une confusion qu'il faut quand même relever. Et je pense que la Cour suprême est tombée aussi euh, dans ce piège, euh, dans la mesure où le premier juge qui prenait l'audience et devant lequel il y a eu les plaidoiries sur l'exception d'inconstitutionnalité a été remplacé après qu'il ait écouter les débats, qu'il est demandé que des notes en cours de délibéré lui soient déposées, ce qui a été fait et nous avons la preuve. Euh, si certains le veulent, on leur montrera la décharge du juge. Maintenant, il est à la reprise de l'audience, ils sont contentés de dire rejet, sans dire pourquoi, alors que toute décision doit être motivée. Donc c'est la loi sur l'organisation judiciaire en fait, euh, bannit euh, toute décision rendue par un juge euh, lorsque la décision ne contient pas les motifs, donc les explications, n'est-ce pas, euh, qui ont amené le juge à rendre sa décision, ce qui permet un contrôle. Bon, donc, on n'a vu nulle trace de cela dans le jugement qui a été délivré. Ce n'est pas la faute des avocats, c'est un manquement donc, du service Euh, de la justice, du service public de la justice. Par ailleurs, les greffiers devaient reprendre cela dans le plumitif et la Cour tout à l'heure a dit qu'elle ne trouve euh, nulle trace dans le dossier déposé. La question qui se pose est que est-ce que la Cour se contente donc du dossier qui est déposé ou la Cour que les avocats déposent ou la Cour à l'obligation de vérification de l'ensemble du dossier qui lui est transmis depuis l'enquête préliminaire, euh, l'instruction, la première instance, l'appel. Vous avez vu ce gros dossier qui était sur sa table. Donc, une simple vérification sommaire peut-être aurait permis à la Cour donc, de, trou de trouver ses traces. Euh, est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle ne l'a pas fait Bon, on ne le saura jamais. En tout état de cause, les preuves sont là que ce recours a été fait et on ne peut pas se contenter de dire rejet sans motiver. Cela signifie qu'il n'a pas répondu aussi à la note qui lui était déposée. C'est le défaut de réponse à des conclusions. Et le clou, c'est que le juge, après avoir dit que les expertises, qui sont des éléments en fait scientifiques, ont relevé que les balles euh, qu'on des corps des victimes blessés ou décédés ne correspondait pas, n'est-ce pas, aux balles qui devaient être, qui, devaient, qui, qui pourraient prévenir de, des armes euh, saisies sur Jean-Paul Diaz. Alors, nous avons Barthélémy, euh, Barthélémy Diaz, Diaz. Bon, donc, il est clair que lorsque le juge, euh, juge le dit, et en conclut en disant que cela ne milite pas à sa faveur et que par voie de conséquence il est coupable, nous nous avons vu que dans le même raisonnement, le juge a dit une chose et a tiré des conclusions en fait incompatibles. Voilà. Donc, euh, et la Cour a décidé qu'il n'y avait pas de contradiction et que le juge, la décision qu'il a rendue était en fait euh, une décision, en tout cas, quel agrès, d'où le rejet donc, euh, de, de, tous les moyens. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, c'est une décision qui est rendue. Une autre décision pourrait être rendue si nous recevons mandat de, monsieur, de notre euh, client euh, Barthélémy, euh, Barthélémy Diaz, euh, de saisir encore euh, la Cour suprême d'un rabat d'arrêt où ce sont les chambres réunies qui connaîtront de ce, de, de ce dossier. voilà euh, bon ci ci tënk euh, atte bu njëkk bi euh, dañu nekk tribunal dafa nekk dafa daanoon Barthélemy Diaz ñaari atu kaso yoo xam ne que juróom-benn yi la war la waroon tëdd te fekkoon ne tëdd na ko ba pare ñaareel bi euh, daan ko pour que mu ndàmpaay mu joxe ndàmpaay ñaar fukki million ak juróom euh, ci kaw loolu ñu dem pour attewaat ko ci attewaat boobu nag dafa am benn ponk boo xam ne avocat yi dañ koo yëkkati te ponk boobu euh, cour d'appel amul sañ-sañ xool ko walla di ci mën cee dugal kàddoom dafa waroon jël dossier bi jébbal ko euh, conseil constitutionnel loolu la yoon wax wante cour d'appel deful loolu dafa jël mbir mi dem délibéré maanaam euh, dañoo dem diisoo ñu dellu siwaat ci seen diisoo ñu ne lii ngeen yëkkati euh, duñ ko jébbal parce que yenuwul maanaa alors que yoon mayu ko mu xool ndax yenu na maanaa wala yenuwul maanaa wante yenuwul maanaa boobu it waxuñu lu tax ñu nekk yenuwul maanaa dañ ñëw rek nekk dàq nañu la ngeen def atte bi dañ koy continuer mu di jalgati nañu yoon tey jii cour suprême nee na que jalgati yoon boobu moom mënu koo wax ndax gisul fenn ci dossier bi foo xam ne que ponk boobu euh, maanaam euh, jël nañ ko wax nañ ko ci biir tribunal bi te sunu dossier loolu nekku ci ñun nag cour suprême du ñun lañ ko jébbal rek cour suprême dossier lañ koy jébbal dossier bi enquête bi bi ñu def police enquête bi ñu def euh, ci tribunal atte bu njëkk bi ak atte bu mujj bi ak ñun lañuy ñaxtu lépp lañ koy jébbal kon man ma jàpp ne warul mun a yem rek ne que seeni kayit yi ñu jot loolu nekku ci parce que ba ñu taxawee tey ci jo yëgal nañ ko ne Euh, bu xoolee la nga xam ne moo ko yor dina gis ne que lépp lu ñu wax ci ponk boobu mu ngi ci biir dossier bi waaw nañu gàttal rek ne que dàq nañ ko leneen li ci des moom moo di que euh, ci lañ doon ñaxtu moom moo di que attekat bi dafa nekk euh, kuréel yi nga xam ne moom la ñu seppi ci yaramu nan la tuddati Njaga Juuf ak ñi nga xam ne dañ ne dañoo dañ dañ leen gaañ kuréel yooyu Euh, bañ ko xoolee nekkul kuréel yoo xam ne mun na jóge ci fetal yi Jean Paul Diaz yore woon Barthélemy Diaz yore woon ngeen baal ma ndax papaam laa gën a miin moom laa gën a xam moo tax tur bi di ñëw dégg nga kon boog bu waxee loolu ba pare nekk quand même euh, lañu lañu la njaga moom la ki gaañ ñeneen ñi daanaka moom la ak moom ak ña àndoon ña mu ña mu nekkaloon kooku ñun ñu gis ne que wax ci biir wax dafa am waroo mënoo wax ne que la ngay wër fekkew ko ci nit ki ba pare ne nit ki moom moo ko def maanaam foofu pour suprême nee na que moom euh, ci ñoom seen xam-xam foofu amul benn waroo kon boog ñu jàpp ne que daal ci gàttal ci wolof ndax jël di tekki ci wolof la ñuy wax ci tubaab dafa dafa jafe mais ngeen jàpp ne que daal cour bañ na lépp kon atte ba njëkk ba te ñu dëggaloon ko cour d'appel atte boobu moom mooy wéy léegi nag fa am mbaxana léegi bi mooy mbaxana bi nga xam ne moom moo xam mbir mi saytu ko wante am na mbaxana bu ko féete kaw loolu nag ñun euh, dañuy yebal ñu liggéey bu ñu ne yemale leen fii ñu yem foofu kon boog ñu ngi déglu nan la tuddati euh, Barthélemy Diaz ba xam ndax daf ñuy yebal pour que ñu yóbbu mbir mi fi gën a sori nga xam ne fa lay yem wala ndax nañ ko dàkkal kon moom la ñuy déglu.